asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ bi daana wax ne maa ngi leen di digal comme doon ci yéen buñ ko tooñee mu muñ ko ngir yàlla ku ko def yaa ngi ci biir sange soo xam amut bunt danga nga mucc ci lori weñ mucc ci lori yoo am ci jataay ba ku ne ko loolu de am nañ ci mbett jàppoon nañ ne weñ moom amut lor mun a xanaa da ngeen amut góom ku ci am góom rek dana xam ne weñ am na lor wasalaam